daleen ak jàmm seen seen bii di Thiowli Buzz kii di Idrissa Seck ci korite bi ñu génn ginnaaw bam jullee ba yëkkati woon na ay kàddu daal di koy jëmale ci ëttu politique bi ci loolee kii di Idrissa Seck xamaloon na Sénégal yi que moom mooy chef de l'opposition si li ni mel kii di président Ousmane Sonko ci mitin bu mu doon amal biir Ziguinchor yëkkati woon na ay kàddu daal di tontu kii di Idrissa Seck si loolee kii di président Ousmane Sonko xamaloon na Sénégalais yi que ne politicien professionnel yi nga xam ne dañuy combine bëre ñëwati nañ ci ëtt politique bi li ni mel moom moo tax géew bi temps yi dafa jaxasoo lool nee nag boo demee ko d'Ivoire daa am benn citation bu ñuy wax te mooy que ne tous les moutons se promine dans les rues d'Abidjan, mais ils n'ont pas les mêmes prix. ne tamit statut de l'opposition amul ci benn feuille buñ koy bind donc ku ko neex mën naa jóg di ko revendiquer wu waaye lu leer ba am mooy que ne boo wàccee ci terrain bi si ngay xamee que ne chef de l'opposition nga wala nekkee ko ndax mun nga taxaw di wax waaye boo demee ci réalité bi di nga xam carrément ku nekk chef de l'opposition ci réew mi di Sénégal ndax ne si terrain bi la ñuy xamee kuy chef kuy adjoint chef waaye tamit si la ñuy xamee kan mooy surga bi ginnaaw loolu yëkkati woon ay kàddu di xamal partisan mi que ne am na débat yoo xam ne ne ay débat yu inutile la kuy chef de l'opposition wala ku ko doonut loolee du débat na gaa yëpp focus ci li nga xam ne ne moom mooy dem inscrire ci liste électorale yi ñu daal di waajal élection présidentielle de 2024 ñi jëm ngir mën koo jël dès le premier tour loole la kii di Ousmane Sonko yëkkati woon ci mitin bi nga xam ne doon am biir Ziguinchor daal di tontu kii di sa Seck.